Modou Mbaye Uba Uba Uba ngi nii taxaw wekk xar yi ak dibi yi Modou Mbaye Modou ana Modou Mbaye ajaratu ngoye ngi nii di xool emplacement bi bâche yaa ngi nii fee la nit ñi di gàmmoo waaye fii la traiteur yi nekk ah, ah. gi lekk ak naan ak seen si waaw waaw ajaratu ngoy faala ngi nii ajaratu ngoy faala ngi xool dibi waaw di xool anatan na emplacement bi dibi saaf yaa ngi nii lépp a ngi nii xar yaa ngi nee ci ginnaaw li fi na ci ay xar ëpp na téeméeri xar mais bàcc ma sàmba xar yaa ngi ne booy lakkat bi dàq lakk ci àdduna la ñu barki borom Tuuba mais Masata ak Masayer Ndaak Cheikh Yaba Cheikh gi tey terrain cité Mbàkke fay la ci terrain bi la na ñëpp ñëw Fall waaw Oubaa ngi ni taxaw ajaratu Ngoy Fall Oubaa ngi ni ajaratu Ngoy Fall dani man sama bés bi damaa ñor man lu dul Seydunaa Muhammad waaw ak du biru diine yënguwuma ci doxuma ci dëgg la moo tax mu ni bés bi lépp lu ma ciy jox doomu aadama yi day doon loon li may dunde man dëgg la te ajaratu Ngoy Fall dundewul dara lu dul Oubaa moo tax bu yëkkati déplacé tey Oubaa ku bëgg ci réew mi doo ko am maanaam tey place Oubaa yi daa tëj lépp fii lañ ko indi dañoo dañoo déplacé bi jibi bi bi waaw piso yaa ngi dëgg la lu ma téeméeri xar xar yaa ngi fi ñuy lonk xar yaa ngi nii ñuy lonk barke Sëriñ Bamba kenn du moom laa ilaha illallah eh Uba eh Uba eh Uba ana saaf bi ana saaf waaw xaaral ah, ana kii laa ilaha illallah laa ilaha illallah Modou Mbaye Uba Uba Uba ngi ni taxaw wekk xar yi ak dibi yi Modou Mbaye Modou ana Modou Mbaye ajaratu ngoye ngi nii di xool emplacement bi bâche yaa ngi nii fee la nit ñi di gàmmoo waaye fii la traiteur yi nekk ah ah gàmmu gi lekk ak naan ak seen si waaw waaw ajaratu ngoy faala ngi nii ajaratu ngoy faala ngi xool dibi waaw di xool anatan na emplacement bi dibi saaf yaa ngi nii lépp a nii xar yaa ngi nee ci ginnaaw li fi na ci ay xar ëpp na téeméeri xar mais bàcc ma sàmba xar yaa ngi de booy lakkat bi dàq lakk ci àdduna la ñu barki borom Tuuba mais Masata ak Masayer Ndaak ba Yaba Cheikh Yaba gàmmu gi tey terrain cité Mbàkke fay la ci terrain bi la na ñëpp ñëw Fall waaw Oubaa ngi ni taxaw ajaratu Ngoy Fall Oubaa ngi ni ajaratu Ngoy Fall dani man sama bés bi damaa ñor man lu dul Seydunaa Muhammad waaw ak du biru diine yënguwuma ci doxuma ci dëgg la moo tax mu ni bés bi lépp lu ma ciy jox doomu aadama yi day doon loon li may dunde man dëgg la te ajaratu Ngoy Fall dundewul dara lu dul Oubaa moo tax bu yëkkati déplacé tey Oubaa ku bëgg ci réew mi doo ko am maanaam tey place Oubaa yi daa tëj lépp fii lañ ko indi dañoo dañoo déplacé bi bi waaw piso yaa ngi dëgg la lu ma téeméeri xar xar yaa ngi fi ñuy log xar yaa ngi nii ñuy log barke Sëriñ Bamba kenn du moom laa ilaha illallah eh Uba eh Uba eh Uba ana saaf bi ana saaf waaw xaaral ah, ana kii laa ilaha illallah laa ilaha illallah